moom huit ans la kay sept sept minutes par heure. والقلم جسمه محطم من أول اسمه مكتوب الموضوع على اللوح والقلم شدها بدر الدجى نور العدا مصباح ظلم سيد الكونين وسقف الصخلين رب القاسم سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ça fait 10 ans.

mais il faut Famara génn il faut Famara boo Kaka mooy génn. Kaka mooy génn. nga dugal nga dugal benn boy bu ko ci marché. marché bi mais Fama Pape Gueye. Pape Gueye Pape Gueye mooy dugg. Famara mais six non non dañu mën a sax. six baax na. il faut nga kuy kuy tàgg. bëgg naa leen wax daal seize bi ñu bàyyi moom ci ginnaaw carrément ci ginnaaw

waaw ñu ngi doon seetaan match fii sa kër tey euh, Sénégal jeex na Sénégal gagné na 3-1. Mhm. première à chaud. waaw mooy euh, Sénégal euh, tey jii wax dëgg yàlla ñëpp kontaan nañu l'espoir est est né il est permis aussi. Mhm. tey cette première victoire et c'est une victoire africaine parce que Sénégal moo indi la première victoire africaine donc c'est un honneur lii nga xamante ne gis nañu ko. ñëpp nekk ci mbégte en attendant le le dernier match une grande finale entre le Sénégal et l'Équateur donc ñu ngi suivre mbir mi mhm. am mbégte mu rëy nag ci li xew tey mhm. mais victoire bi mhm. mën nañu wax ne ça a tardé à se dessiner début bi na ba ñu xaw a egg presque mi-temps si la gars yi soog a dugal ban jàngat nga gis def ci taxawaayu équipe Sénégal bi waaw xam nga c'est tout à fait normal nous sommes dans une coupe du monde euh, équipe yi parfois dañu am ay rentrées timides mais au fur et à mesure compétition bi di avancer euh, les les les muscles se nit ñi di amaat beneen souffle bu bees donc am nañu yaakaar ne que match contre Équateur bi mm-hmm. euh, Sénégal na tax waay encore bu bees bu am am am solo. Mm-hmm. pour ñu mun a qualifier vers les je pense qu'on va vers les huitièmes. deuxième tour waaye le deuxième tour waaye le deuxième tour. Mm-hmm. am nañ ci yaakaar bu mag nous sommes tous derrière le Sénégal. di ko supporter vraiment à fond. waaw comme ni nga ko waxee am nañu défaite am match nul tey. am victoire tey am victoire tey. Équateur war a jouer contre ki ñu gagné woon. tout à l'heure léegi finalement suñu match bi contre Équateur mooy nekk la grande finale. la grande finale voilà ban jàngat nga war a def. ci waaw lii tey xaw a ñun dañu am yaakaar bu mag ci xale yi yaakaar ci xale yi la nouvelle génération ñoom Bamba. ñoom Ilimane je pense que ce sont des joueurs yu ñu war jox confiance. Mm-hmm. ñu départ loo leen ci prochain match bi. dina ci am solo trop. waaye mm-hmm. te tamit amoon na tuuti faille organisation jeu bi après entraîneur bi def ay changement mais gis nañu bi ñu defee changement aussi ci lañ jël bit bi. Mm-hmm. alors loolu tamit réaction yi lan lay doon. waaw il faut toujours euh, corriger rectifier euh, rester concentré. moo indi tey jii un changement gagnant. Mm-hmm. et il faut agir comme ça incha allah. Mm-hmm. te mars bi. Mm-hmm. lan mooy message bi da da message waaw message bi. le tout le peuple sénégalais nekk ci ginnaaw cette grande équipe nationale. Euh, am ci ñoom confiance. Euh, gën leen supporter ñaanal leen aussi. ñaan bi moom du dooy mukk ñaanal leen et ñu am victoire euh, daal di tàbbi ci deuxième tour bi comme ni nga ko waxee mm-hmm. la coupe du monde cette cette cette année elle est ouverte mm-hmm. surprise mën na ci am mën na ci xew yu yu mag te dañu am yaakaar mm-hmm. ne Sénégal même su démarrer timidement suñu organiser woo davantage nous pouvons espérer même gagner cette coupe parce que mhm. wax dëgg yàlla loolu la sénégalais bu ne di ñaan moom la africain aussi bu ne di ñaan que la première place de ce mondial revienne euh, à à une équipe africaine. Mhm. vivement que ça soit le Sénégal mhm. incha allah. waaw gis nañ ne aussi sa kër gi fii tamit presque mën nañ ne fan zone la. parce que au moins presque une trentaine de personnes danañ fi ñëw chaque match Sénégal di ko seetaan si. organiser lu mel noonu fii gars di fi daje. di seetaan match bi waaw famille religieuse famille politique famille tout court ah moo tax euh, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement ah dañuy daje et même si événement yi amul naturellement mm-hmm. tous les jours euh, nous nous fréquentons mm-hmm. oui loolu moo tax euh, lu mel ni lu mel ni am et puis on supporte le Sénégal avec mm-hmm. une grande ambiance ah de famille gis nañ ne Sénégal aussi politique dafay xaw a dominer si suñu relation yi lu bëri mais bu match bi jotee bu Sénégal di jouer presque ñëppay nekk benn est-ce qu'on peut dire que football mën na sauver Sénégal. waaw euh, du foot du Sénégal rek de soo xoolee tey jii nga dem Iran dem Syrie dem pays yu nekk en crise dans le temps euh, da ngay xool ne saa yu football amee dafay réunir toutes les couches de la société. xoolal tey li xew Arabie Saoudite ils ont gagné l'Argentine nga gis ne may nañu ci royaume bi trois jours de de jours fériés mm-hmm. mu am engouement amaat encore une grande union autour de la sacralité du, du royaume. Mm Le peuple convergeait mm-hmm. vers la paix, vers la stabilité et vers un nouvel, espoir. Mm-hmm. Donc, fépp ci àdduna. football yëngal na yëngal na ay ay ay dëkk. delloo leen ñu juboo mm-hmm. xew na fu bëri bëri bëri mm-hmm. e le Sénégal aussi en bénéficie aujourd'hui mm-hmm. gis nañ aussi entre Qatar yi ak Saoudia yi demaloon noonu mais ak ndax coupe du monde bi seen seen prince bi mu ngi ngi jaloon ma euh, drapeau drapeau Arabie Saoudite mhm. di jubilé ak yooyu donc yooyu tamit dafay permettre di raffermir lien yi waaw waaw non seulement da koy raffermir mais soo seetloo bu baax mhm. tey euh, le le gouv le le royaume saoudien a été intelligent mhm. dañu wax ne ku am euh, visa Qatar di seetaan match rek automatiquement ubbil nañu la aussi visa saoudi nga mun a def umra su fekkee musulman nga wala soo bëggee visiter aussi donc c'est-à-dire les les États sont en train de gérer leurs intérêts. Mm-hmm. et tey jii soo demee aux Émirats arabes unis euh, le pays est à quarante cinq minutes. Mm-hmm. de vol du euh, de de de Doha. Mm-hmm. nga xool ne léegi une grande partie des des de de football. ñoom Dubaï la dëkk. di jël vol di dem di dellu si. donc loolu tamit renforcer Émirats arabes unis. Mm Donc les États sont en train intelligemment mm. de s'ouvrir au monde, mm. mais aussi di li daf leen permettre ñu booster seen économie. Mm. Et le Sénégal aussi devra faire pareil pour booster son économie. Il faut mu ubbeeku ci àdduna bi du tëyal buntam kenn. mais agir intelligemment dans un partenariat gagnant-gagnant. Avec cette deuxième défaite. De, deuxième défaite pour qui pour, pour, pour, le, pays ordinateur. Ils sont éliminés, le Qatar éliminé. Mais on peut dire que c'est et pour le pays. Et économique, aussi, ouais. pour le pays. Donc pour yow, qu'est-ce que les Africains doivent faire dans ce genre d'organisation-là pour qu'on puisse nous au moins aussi avoir le bénéfice d'organiser ce genre de manifestation li ñu war a def c'est simple mooy def comme dëkk yi génn ci ndool yëpp def mooy à la place de vouloir euh, restaurer l'ordre mm -hmm. c'est d'aller vers l'organisation intelligente du désordre mm lii la Sénégal wala def ci lépp nag organiser le désordre mais intelligemment mm-hmm. mais malheureusement ñi ñu jiite nii mënuñu ko parce que mm-hmm. ñoom ils sont déstructurés mm-hmm. il il leur sera très difficile d'aller vers cette organisation du désordre malheureusement merci beaucoup voilà